Dalen ak jamm mbokki internet yi safo di setan bes MTV cant ak ngërëm ñen na len si top bi ngeen di top sen bi audio fuité yu Amadou Ba candidat wu président Macky Sall mu nek nak mbir yu doy war ginnaw ay audio yo xamne daal dinañ koy jot est-ce authentique na am deet di ngeen si xam dara ñu dektal len revelation yi nga xamne nak amna ci ginnaw bi audio yi fuité réaction yi nga xamne nak ñi ànd ak président Macky Sall mom lañ def ak ñenn ci ñi nga xamne nak mom mi di amru Ba mom lañ def mbir mi dëgg la am deet di ngeen sa xam dara mu nek nak mbir mo xamne doyna war lol ginaaw bi nga xamé ne ki di président Macky Sall daal dinay japp datu élection le 24 mars yagul dara audio yi daal di fuité moom Ba ñuy wax kané nak amna lo xamne daal bëggoon mbir mu kon jëwul antu mu nek mbir mu doy war ñu daal leen dégtal revelation yi nga xamne nak amal nañ ko ci ngeen tewlu jangat yi nga xamne nak ñi di wa APR daal di nañ ko ci amal mu nekk mbir yu doy war yo xamne dal mo ngi doon am ndeke te kenn yegu ko euh, est-ce nak c'est authentique am det lolu momu yagul dara dinañ ci xam dara ba xam audio yi ki di Amadou Ba moko def am det ak ni mu jégué ki di président Macky Sall dal mbir yi mom jamono bi yémi na lool ci langue politique bo li xew de audio yi di lëmbee ci dëkk bi. yaa <laughs> ilaha illallah ay man de lii de barki Seydina Muhammad waa PDS yàgg nañ ko wax waaye billaahi wallaahi wa taalaahi gëw ma ko woon lii de bu sama nopp bii diglu wutoon gëm ne lii am na non nit a lëndëm nit a lëndëm laa ilaha illallah ay tontoba, ba tudduma turu kenn de xam nga diffamation dafa gaaw audio bi ma diglu mom. tontoo ba la mom ki mom batam xamé na ko bu baax kam don waxal nak audio am excès gud way bu tontoba ba na ay ah sey yalla suñu borom Abdou sama turandoo man nak awuma candidat man sama discours boko ko daan dégg man Macky Sall la daan wax ay waxam ba mu jëlee loi amnistie caaxaan bi jëmangum assemblée laa génn ci moom man fi mu ne nii damay observé wóolootuma kenn sama nopp yi kay man li ma dégg man li ma dégg man audio bi ma dégg nii tax na man maa ngi méfié wu sax est-ce que sama jabar sax du ma commencé méfié wu ci moom parce que lii lii dafa doy waar te nag maa ngi wax sama ojo fii gis nga gas waa ak Aziz bu ngeen moytul dina am ci réew mi. président Macky Sall de kuy mbokk bokk bu wacce mu genn rew mi dem togi menen rew japp njàmburam maa la ko wax de kha illa allah ndekete manifestation yi don am ak ñu nan opposition bi ndekete yu am nañu nek seen ginaaw di len financer ba pare di yendok Macky di añandoog mom allahu akbar ndekete yu la ilaha illallah waay Macky Sall kay coup d'état woon nañ ko ba pare. ah Macky moo doon sa candidat Macky daal yow moom daal yow instant li daal li xew daal moo tax nga kii waaw mais defal man ni ma def rek man ànduma ci ci ci loi bi mais teewul maa ngi def ba tey ci ginnaaw président parce que wax dëgg yàlla nag président lim ma ji man dama jàpp ne. lu mel nii waru ko waru ko fee jëlee ci loolu waru koo jeexal ci man quoi lu mel nii waru koo jeexal ci man xëy na dafa xam li ma xamul moo tax mu def li ma li ma li ma li ma bëggul loolu dong la jëlal position bi ma jël rek man loolu laa jàpp nga waroon a def quoi euh, mais nag mu dellu si ci audio bi euh, boo dee wax li ngay wax ni c'est parce que day mel ni da nga gëm ne da nga gëm ne audio bi am na da nga gëm ne audio bi lu wér la mais man je crois ne c'est pas authentique man loolu laa gëm. te loolu si loolu laa lay éviter <coughs> bul fàtte ne président mu ngi nekk koo xamante ne moo gën a informé wu ci réew mi te jàpp naa ne tamit Amadou Ba ak euh, président Macky yàgg nañu kon jàpp naa ne président Macky Sall ak fu mu jaar Amadou baax lu mel ni bu doon am lu mu dee dee dee dee xam nga ne président Macky Sall du cuune du cuune te jegewul cuune kon dafa am yenn affaire yoo xam dafa cohérent sax dafa cohérent Euh, mënul nekk ci ginnaaw président Macky Sall di def lii muy def nii te fekk na président Macky Sall du ci xam dara ba président Macky Sall di ses ci miir bi di ko bàyyi muy def lu ko neex loolu mënul nekk Abdou Abdou ku ne xam na président Macky Sall yow xam nga président Macky Sall njàccaar la kon am na yoo xamante ne buñ ko dee wax rek ah, yow sa jëm bopp da war a jël sa réserve te xam ne am na yoo xamante ne bu buñ ko waxee tamit di buñ ko waxee bu waxaabul la te diggaabalul bu ko nit mënee wax ah yow waroo ko mën a dégg quoi man loolu laa gëm. <laughs> Mane, sì, figa, le era. Figa, le pocoera. Sawa ah, ya, ñun duñ ay ngaaka nak. Am nañ audio buñ triqué buñ triqué wul. Ah, ñun kay yàlla xam suñu ëllëg Senegal Sénégal kay xam naa ne réew yëpp yàlla ya leen yor de waaye Sénégal moom yàlla ya dañoo téyel boppam moom dénkaane wuñu kenn réew mi li fi kau yëpp lii ah tontoo ba tamit man de xaw ma lu ko ci xiir. waa Abdou waa Abdou man xam naa ne yow doo mais mais xam naa ne doo mais da ngaa bëgg dégg li nga bëgg dégg man loolu laa gëm yow li nga bëgg dégg nga bëgg dégg mais nag xam naa ne doo ngaaka waaw yow mii dem di jënd ay kele dix mille kay xam naa ne doo ngaaka wa waaw man nante nga booy taawul nga waaye xam nga yow Eh, donga ka mais rek da nga bëgg a gëm li nga bëgg a gëm loolu man tamit loolu aussi xam nga da bay xaw a jaaxal quoi en tant que nante ah war a gëm ne ah président bu toll président Macky Sall ku mel ni Amadou Ba ah <laughs> war a ne ci ginnaaw def li muy def ba parti président Macky Sall du du ci xam dara dem ba ci miir bi ah en tant que nante yow nga nag mën a mën a gëm loolu yow あどんがかでは言えぶね。waaw sama waa ji waaw parce que mu doon ay nit Lolu tax amo ci mon confiance mais Amadou Ba cadre la nek mo politicien politicien mais mo tax mu mais lolu da ko war def parce que politicien la mais lolu c'est normal pour man man dama japp ne lolu c'est normal parce que tamit xam nga en tant que politicien da nga wara am base da nga wara am base danga war a am ay nit danga war a am am nit ku ne mais loolu bu ko jàppee trahison loolu tey jii euh, président Macky Sall mais fépp la am ay nit fan la amul nit fu ne la am cellule mais nit da ngay am wàccuwaay diwaan bu ne nga am fa wàccuwaay dëkk bu ne nga am fa wàccuwaay boo jubee foofu noonu am ñu la fa mën a teeru mais en tant que politicien noonu la nga war a dundee mais trahison si naka trahison si naka sa waay bu leen di jël yii gars di leen bugg dugal seen bopp parce que lu tax. parce que andu ak choix bi dafa am ño xamante ne ànduñu ak choix bi li bu mu commencé duru leg leg yag na ñu ci commencé dig nit ñi wax nañ ñu ba sonu mais ñun tamit duñu ay xalé duñu ay xalé duñu ay innocent dañuy comprendre dafa am lo xam mo leen taxa juk sa waji deglul makki en tant que Macky da ngay deglu makki lum la wax nga def ko amal ci mom confiance même pas sax Amadou Ba même pas Amadou Ba mais amal confiance ci Macky déglu ko lu mu la wax nga def ko man loolu laa lay loolu laa lay digal quoi.